Lamine Sène Pape Morone Lamine Sène sele oh jël na tànk ba ñu xool ndeysaan jël na ba solo guitare baa oh oh mooy waay ndeysaan nee na ko buñ sifflé bàyyil waaw ah. ah, waaw Moussa Faye ak Bourou du ma ci def ba xaaral ma defaat nii combat bi jël. bu wooma nee ma j'ai un gars boo xam ñi dans la localité de Sindia nekk ci social yow ni nga mel njëriñ dama bëgg nga collaborer ak moom liggéey ak moom parce que yéen a bokk engagement et c'est yàqu yàqu jaay moo wax ma la même chose ñu ànd ñëw sama bureau ma ne ko ah kon de mbir am na maa ngi tëgg sama làmb yàgg nee ma Guillaume nee na pare na ko nga pare na ko làmb ma dem bureau kan mooy Guillaume ma dem bureau ndekete Guillaume ah, boobu noonu Pamaron ak nga di région de Thiès je crois Ngor Faye président zone 6B nga xam ne c'est un exemple ma bàyyi ma fenn ci loolu. kon ah, tàccu leen délégation bii di ñëw nii. tàccu leen leen ma mbooloo mi tàccu leen ma ñii di ñëw nii. tàccu leen délégation mbooloo mi tàccu leen délégation bi. bokk de waaye man moom wax dëgg yàlla bu mbay ak wayan la may gën a. délégation la boo xam ne. moom bokkoon na si ñoom. ki nga xam ne. ki nga xam ne. day dox ay tànkam di la boot. kooku su amee oto du la fi bàyyi. ñun nag kenn moom moom. waaw loolu dëgg la. man de nekk fii man kenn moom. Ah, waaw waaw Lamzo Lamzo. wasalaam. Lamzo. voilà. Ah. ñëpp di leen sant. di leen wax la man la Yaabu Diagne dëkk Ndëriñ Bambara. sama naqar nag ba tax ma tey ànd amul sow Guillaume dafa ko gis sa Ndëriñ. doo tax ma ànd moom. tey rek maa ngi moom ba mairie si Diop bu nekk suñu borom bi yàlla rek la. waaye bu ñu tolloo si bët bi di ngeen xamante ne lu mu duggoon wala lu mu laaxoon man jaaxul naa ko feeñal si wér yi. waaw waaw Lamine Sène daan na ko ndeysaan